so par exemple Teuf Connection Teuf Connection fu wér di bëggee ñëpp di bëggee képp nga xam ne yaa ngi siiw sama seen Teuf Connection TV Sénégal ma leen wax ngeen dem ngeen abonné foofu noonu émission bu bees la mën nañu ko wax minutes ah minutes ah minutes de Connection on va parler di rap galsen si rap galsen la ñu wax comme ñi nga xam nga monopoliser Raptation ñi nga xam ñoo guddee sa loxo on va parler le cas de Ngaaka Blindé gis nañ que ni jënd na album bon depuis boobu léegi ñu ngi commercialisé album ñu koy souhaité mu mu def meilleure vente muy meilleure vente parce que bokk si ñi nga xam ni bu génnee album gars yi dañ parce que euh, dafa bokk si pionnier ña di xasala di xasala ba yegg ci kaw bon on va parler aussi de Dip Dip waaw mi ngi rek musique ah ok moom xasala xasala tamit na si euh, ñi xam ne xeex nañ ba Rocka 5 euh, ak fi mu eggal ah. ok léegi ñaar ñoo leen confronté ku mel ni Ngaaka Blindé ak Dip gis nañ nga ni ñoom ñaar ay ténor mu ne ñoo ko ay kuy lañ ay kuy lañ mooy ñoo fi daa am bëggante à un certain moment li génne woon ak album album LMM gàllankoor tam génne ñoom chaque fois da ngay gis que ñoom ñaar dañuy xeex bon moom mën nañu wax que ni euh, bon dañuy xeex dañuy xeex xeex xeex ba à un certain moment gis nañ benn sàmbaay parce que lépp lépp ñu génnee album ba léegi gis nañ que ni dafa làqu à partir bi ñu jot a génne yooyu euh, gis nañ ko à un certain moment daf def benn standby bon pour man ponkal boo gisee mu toog rek euh, noppi waxul dara lu muy waajal c'est que am na lu grave lu muy waajal waaw euh, te tam da ngeen ko xaar waaw parce que amul dara lu mu prouvé fii au niveau national international bon yeneen a génn à un certain moment gis nañ que ni moo indi yu bëri ah moo indi problème yu bëri.

ci camp yooyu euh, le camp de Rétry euh, mën nañu wax que ni DIP moom mooy kii mooy capitaine mooy diriger un certain moment da ngay dem ba gis que ni rab gaal seen euh, ñu ñu laal point ndaw yi waaye gisoon nañu kii yu ndaw yi classe ndaw xam ne amoon na ci camp ak yeneen ak yeneen léegi je vais parler de Mane Lyrical ak Hekila wan luy gën xekkee parce que ñoo tam gis nga danoon attaqué camp rectiligne ba à un certain moment léegi moom gis nañ que ni dañu xaw a benn pause dañu xaw a benn pause ah camp rectiligne ak euh, euh, di génnaat ah. bu ko defee ñu gën a lancer waat Galsen parce que euh, ñaari camp yooyu souvent bu amee kii rek day gën a lancer ñeneen ñi comme. jeune labeur yi ak ñeneen ak ñeneen soog nañ ay gàdd ak artistes wala yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen ah. ok loolu des fois day relever rab gaz il faut tamit euh, gars yi di si wax tamit ah tamit parce que waruñu di décalé dégg euh, def correction waaw gënaatal gënaatal tuuti bu defee rab gaz euh, mën a jugaat jugaat tuuti waaw noonu lay defee def connexion mooy lancé kii boobu noonu génn génnoon kii wala ñaata tamit am na lu muy préparé ah, ok. comme ni ma ko waxee émission bu bees la euh, Teuf Connection euh, moo ko doon def may waxtaan yi ngeen dem ngeen abonné sama chaîne Teuf Connection TV Sénégal ok ah euh, muy les cinq minutes de Teuf Connection ah ok muy fës fës fës émission tey bu koy doon démarrer bi ok anyway ñu ngi laaj leen artiste bu wax si ñoom ah, ok Teuf Connection ah ok foogee forever ok.